ñu ngi leen bi ziyaare bu baax a baax di leen jox seen wàccuwaay waaw ah, message bi nag ah, message la bu jógee ci pap jëm ci doom message bu jógee ci xarit jëm ci xarit message bu jóge ci mag jëm ci rakk message bu jóge ci nijaay jëm ci jarbaat mën naa sax ne message bu jóge ci maam jëm ci set internet bi moo ñu boole ça fait déjà sept ans mën naa ne huit ans de sela ñun ñëpp ñu bokk benn komba ñu nekk ci internet bi di xeex ndax dañu gis li ñuy ni ñuy doxalee suñu réew neexuñu ñi ñu jiite doon ay nit yoo xam ne seen loxo setul mu doon ay nit yoo xam ne seen yéene baaxul mu doon ay nit yoo xam ne duñu waxkatu dëgg te taskatu xibaar yi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci suñu réew mi muy réewu Sénégal ñu doon ay taskatu xibaar yu doy waar maanaam maandu wuñu te duñu wax dëgg te duñu àtte dëgg daanaka ñoom ay chaîne lañu yor rek ku leen fay ñu waxal la li nga bëgg ndax dégg nañ ko fii ci ku mel ni Tange Tandian gis doxalinu Cheikh Yérim sek gis dox doxalinu Maimouna Ndour Faye gis doxalinu même Pape Ndiaye mu mujj mi ci Walf ak ñeneen ku lim juum bari na lool waaye boo leen gisee ma jël message bi tey ma ñëw à cœur ouverte may waxtaan ak sénégalais yi suba dafa doon bis boo xam ne dañu war a génn dem wote te ginnaaw bu ñu wotee suba li ñuy wote suba dina affecté ay génération yuy ñëwaat ci kanam amaana man mii di wax ak yéen mën naa bokk mën naa bañ a bokkati ci ñiy changer destin wu Sénégal ndax bu ñu ratee suba ba ñoom ñi may wax muy waa kër ñàkk jàmm ñu jëlaat réew mii di ko yàq dana ñu dem yeneen juróom fukki at du ñu man a récupérer waat te loolu amaana du ma fekk ba dund moo tax ma jël temps bii tey ginnaaw bi ñu campagne ba campagne yëpp jeex comme li ñu mag ñi wax bu ñu toogee ba suuf sedd Sénégalais yëpp nekk seen kër xaaruñu lu dul suba ñu xëy ñu dem voté ma ne xaaral ma waxtaan ak samay mbokk samay mbokk sénégalais ndax man nag sénégalais laa de part entière donc samay mbokk ngeen bu may waxtaan a yéen ñëpp lay waxtaanal dama bëgg ngeen xam ne xeex bii ñu xeex xeexuñu ko pour suñu bopp c'est le don de soi pour la patrie comme ni ma leen ko yàgg waxee rek man Ousmane Tounkara de xam naa ne à cent pour cent xeex bii ma xeexal Sénégal sama doole laa ci jox sama ñaq laa ci jox sama xalaat laa ci jox te xaaruma ci dara te xam naa ne bari naa ci ay morom donc loolu moo tax ma ne tey ma ñëw ma waxtaan ak yéen bépp doomu sénégalais suba da nga war a xëy sangu ba set soo ko ma ne xëdd nga sangu ba set sol sa yére yu set nga daagu ndànk dem ci bureau de vote nga yëkkati sa kart bi nga xam ne yow yaa ko moom nga xam ne yow dong ak yàlla yow yaa ko moom te loo ci dogal kenn mënu la koo xañ nga wote te boo wotee ak sa carte boobu nga xam ne yow mii de tey jël nga décision pour vote pour changer histoire du Sénégal ñii wut nag bari nañu ndax toll nañu ci fukk ak juróom-ñeent te ñaar yi di suñu ay naataango muy Cheikh Tidiane Dieye ak euh, Habib si te ñoom ñaar désisté nañu ñu ne na ñëpp votel Jomaay fay donc daanaka mën nañu ne dix-sept personnes ñoo ci nekk dix-sept yi nag duma ci ŋàññi kenn ndax ñoom ñëpp Sénégal lañu ñu bëgg waaye dama leen bëgg a wax ne man gëm naa ne te xam naa ne te adduna bi yëpp xam nañu ne sama candidat bii mooy ki gën muy Jomaay Bassirou Jomaay Diakhar fay moom mooy candidat bi gën ci candidat yi ndax moom mooy candidat bi nga xam ne taxaw na ci candidat yépp def li ñuy ne déclaration de patrimoine maanaam critères yi président di remplir ci Sénégal yépp Bassirou Diomaye Diakhar fay remplir na wax nañu ñaata alal la am ba man mii di wax ak yéen dém bu may tooñ sama benn xarit ma ne ah ñun suñu président bi macha allah doy loolu mu wax ñu ay soxnaam yëkkati seen loxo ci kanamu àdduna yëpp wane ñaari soxnaam ne ñu ñii ñooy sama soxna won ñu ne moom mii de Bassirou Diomaye Faye dafa liggéey impôt et domaine fukki at ak juróom comme ni ko suñu président Ousmane ko defee te loxoom set wicc masul jël dërëm bu mu moomul donc man gëm naa ne ci élection yii ñu jëm moom mooy candidat bi gën moo tax may ñëw di wax ak yéen ginnaaw moom nag am nañu beneen candidat muy Amadou Ba Amadou Ba di suñu adversaire daanaka mën naa ne moom moo ci benn adversaire bi nga xam ne xëy na moom mooy am tuuti ndax ñun bu ñu amee quatre-vingt pour cent xëy na moom moo ci adversaire bu mën a ta euh, taley pour cent xëy bu ma ci des nag waaye damay wax rek à propos de li ma gis ci mbedd mi ndax campagne gaa yaa ngi campagne waaye gëm naa ne ginnaaw ñun bu ñu amee quatre-vingt pour cent incha allah boo leen génnee voté en masse xëy na Amadou Ba moo ci mën a am dix pour cent donc moo tax may wax sénégalais yi ne buleen leen juum bu leen juum juum te nag jombul jaam waaye bu leen juum suba du heure juum. suba du heure xaw ma ko woon suba du heure yëguma ko woon suba du heure dama fàtte suba du ëru ah déedéet xooluma ko bu baax déedéet suba xoolal bu baax na say bët gis na say nopp dégg na sa xel bi dellusi suba du heure juum déedéet suba xam nga ban heure la heure wote gars yi Amadou Ba laa leen di jox comme exemple Amadou Ba li mu am ci alal ci Sénégal kenn xamul nu mu toll fonctionnaire la nag fonctionnaire mooy doomu aadama bi nga xam ne Sénégal lay liggéeyam fonctionnaire boobu bañ ko ne mu def déclaration de patrimoine maanaam wane ci li mu am ci alal dafa ne du ko def day xaar ba buñ ko falee ba pare maanaam critères yi mu war a remplir pour ñu fal ko Amadou Ba nee na dañ xaar ba ñu fal ko ba pare ñu def bokk na ci Amadou Ba weddi jabaram moom soxnaam bi nga xam ne moom moo ko takkal boppam soxna si nekk adduna bi yëpp gis ko photom Sorano Sorano ñun ñëpp ñu gis soxna si muy célébré Sorano boo leen ko xoolee soxna Amadou Ba bi moo nekk nii Hawa Mamita Kan la tudd ñu nii kii mooy Hawa Mamita Kan jéem nañu sax nelawal suñu xel yi di jéem a nelawal xelu sénégalais yi ñu ne déedéet jabaru Amadou Ba mu lokk Afrique la déedéet jabaru Amadou Ba mu lokk Afrique Zeyna Menhem la tudd kookoo ngi nii donc du benn nit bi donc li tax ma indi ñaari photo yi c'est parce que Amadou Ba dañ ko laaj ci télévision nationale ne ko yow ñaari soxna nga am lan la constitution bi wax ci ñaari soxna ci palais ba dugg na fii génn fii Amadou Ba taxaw ci kanamu àdduna bi yëpp weddi ne moom amul ñaari soxna adduna bi yëpp di ko dégg donc kooku pour man il n'est pas présidentiel ndax nit koo xam ne li gën a yomb parce que nag nañu waxante dëgg doomu aadama ci kaddu defe naa bu ma juumul nee nañu sëñ Saaliw sëñ Fallu moo ko sëñ Saaliw moo ko waxoon xaw ma sëñ Fallu maa ngi jéggal mu ne nit soo koy jàpp jàpp ko ci kaddu démbam méngoo ak kaddu teyam bu kaddu teyam méngoowul ak kaddu démbam rek bu ko jàpp maanaam kooku du wax katu dëgg te nit bu dul wax dëgg rek ñun ñëpp xam nañu ne kooku matul kilifa ndax boo leen ma xoolee kàddu yi ma fii tànn tey dama ko bëgg a segg de bu baax dama bëgg wax dama bëgg a wax li nga xam ne moo leer sénégalais yi dégg ko ndax suba dañuy dem sànni suñu carte te li tax may génn nii di sakku ñaan di sakku ndimbalu sénégalais yi di sakku suñu pas-pas mooy bëgguma ñu def erreur man dama xeex juróom-ñetti at sama baat bi dégg ngeen ko fi mu toll ni jaratul dara juróom-ñetti at may xeex pour changer li fi nekk jéem nañ ko 2019 ñu luubal élection yi au premier tour def seen ay xaar ma jaaga seen i ay kalma ñàngaan Macky Sall ñëw déclaré boppam vainqueur ànd koog sa Seck ñu ne pat ne leen ñu ngi leen di xaaraat ba beneen yoon beneen yoon boobu moo jot muy deux mille vingt quatre muy suba incha allahu rabbi le vingt quatre mars deux mille vingt quatre maanaam trois vingt quatre vingt quatre le vingt quatre mars le vingt quatre troisième mois deux mille vingt quatre suba incha allah sénégalais yi dañuy dem wote may ñaan sénégalais yi man Ousmane Tounkara seen doom seen xarit. seen doomu ndey te ngeen xam ne man lépp lu may xeexal Sénégal laa koy defal te ngeen xam ne man Bassirou Diomaye Faye yónniwu ma man benn doomu aadama yónniwu ma damay vote te bu may vote sama xel laay voté du ma vote sama xol aw ma par parparloo du ma pël fuuta du ma séeréer du ma joolaa sooninke laa saraxole donc je suis sama yaay du joola sama yaay du séeréer sama papa du joolaa sama papa du séeréer sama yaay du pël Fuuta sama papa du pël Fuuta donc man kenn mënul wax ne kii de net da ko bandum lay def wala kii mbokk lay voté kenn mënul wax loolu je suis un à part entière moo tax ma ñëw ma ne à cœur ouverte tey dinaa jël jour bi muy jour repos ma ñëw ma sacrifier ko waxtaan ak sama doomu ndey yi dama bëgg suba kenn ku nekk ci yéen maa ngi leen di ñaan lillahi wa rasuli kenn ku nekk ci yéen bu jëlee kartam boo demee ci mbañ ngàcce ga nga xalaat ma man nga xalaat sa doomu ndey nga xalaat sa rakk nga xalaat sa mag nga xalaat sa frère nga xalaat suñu doom yi dee nga xalaat suñu doom yi dee ci géej gi nga xalaat suñu doom yi faatu nga xalaat xalaat xalaat nga voteel Bassirou Diomaye Diakhar fay ma won leen nag spécimen bi sama yaay yeeg sama papi bii mooy spécimen bu baax xool leen ko bu baax bii mooy spécimenu Bassirou Diomaye Diakhar Faye bii la yéen a ngi koy xool yéen a ngi koy gis bii mooy spécimenu Bassirou Diomaye Diakhar Faye bii la yéen a ngi koy gis bii la bëgg naa sax ñëpp jël ko def ko statut soo leen ko ma mënee pour ñëpp xam ko jël ko nga won ko sa yaay jël ko nga won ko sa pap jël ko nga won ko sa mag jël ko nga won ko sa rak maa ngi leen di ñaan di sàkku ci yéen di leen ñaan sukk ci samay tànk di leen ñaan ngir yàlla ak yonente bi ngir yàlla ak yonente bi ngir yàlla ak yonente bi mi ngi nii mi ngi nii kii mooy Bassirou Diomaye fay kii mooy Bassirou Diomaye Diakhar Faye yéen ñi nekk ci diaspora bi fu leen jaral ngeen voyager dem leen voyage ngeen voté déplacement bum leen jaral génn leen ngeen déplacé wu ak lu mu sedd sedd ak lu mu tàng tàng ak lu mu taw taw ak lu mu neige neige génn leen ngeen dem voteel Bassirou Diomaye Diakhar Faye yéen ñi nekk senegaal maa ngi leen di waatal ci yàlla ak bis bu tedd bi man Ousmane Tounkara duma leen bàyyi duma leen won ginnaaw duma noppi di leen xeexal duma tàyyi di leen xeexal ak képp ku ñu mën a fal dinaa continuer di wax ak yéen dinaa continuer di saafonteeg yéen dinaa continuer di xeex di sàmm seen ak ak seen yelleef dinaa continuer di wax ak ñoom ak ku mu mën a doon te ma gëm ne Bassirou Diomaye Diakhar Faye lay doon pour ñu sàmm seen ak ak seen yelleef ba Sénégal ñu soqali ko ba mu avancé ba mu mel ni réew yi tekki ci àdduna bi yëpp donc gars encore une fois tey du jouru naqar tey du jouru defante tey du jour métti même yéen waa APR sama xarit samay doomu ndey samay frère samay am di jàmm yéen ñi nekk APR dama leen jàppee rek samay frère yu réer xam leen ne vous êtes welcome woo nañu leen with open arms ngeen voté Bassirou Diomaye Faye ñun duñu seeni ay noon seeni ay frère lañu dañu bokkul vision yen peut-être vous n'avez pas compris le problème qui se pose au Sénégal et nous on a très bien compris et on a très vite compris moo tax may woo sama xaritu apériste yéen ñëpp maa ngi leen di woo ngeen ñëw ngeen votel Bassirou Diomaye Diakhar Faye Amadou Ba seen président sax gëmu Macky Sall man maa leen garantiral ne gëmul Amadou Ba parce que Amadou Ba du ku baax Amadou Ba dafay fen Amadou Ba dafay jël lu mu moomul Amadou Ba du wax dëgg Amadou Ba toroxal na sénégalais yi Amadou Ba luubal na alalu Sénégal saax-saaxe na suufu senegal li mu def ci ñaawteef ci senegal bi ci gën a fës mooy bi xew barki dem Amadou Ba jabaram man sama sœur la ñaareelu jabaram c'est ma comme c'est la de tous les Sénégalais ni mu mën a taxawee ci kanamu Sénégalais yëpp weddi ko ne kooku moom benn soxna la am 40 ans la ñu def loolu metti ci xool trop sénégalais yi ma leen di laaj nag est-ce que ñun dinañu toog di seetaan benn nit koo xam ne du wax waxkatu dëgg luubalkat la soskat la tàppalekat la fookat la ñuy jël suñu réew mi di ko ko jox est-ce que ñun duñu xalaat suñu ëllëgu doom suñu ëllëgu sët suñu ëllëgu jarbaat suñu ëllëgu nijaay amina sët sëtaat est-ce que ñun duñu xalaat est-ce que ñun gisuñu coono bi suñu yaay yi son est-ce que ñun gisuñu suñu hôpitaux yi ni mu yàqoo est-ce que gisuñu suñu tali yi ni mu yàqoo est-ce que gisuñu suñu réew bi ni mu ñàkkee développé samay doomu ndey samay rakk samay mag xanaa ñun nag duñu ay bàyyi ma ñun ay nit lañu ñun kenn waratuñoo nax mes frères et kenn kenn waratuñoo nax nañu jël suñu ay responsabilité xale yëpp Bassirou Diomaye Diakhar Faye la ñu àndal xale yëpp Bassirou Diomaye Diakhar Faye la may ñaan sama xaritu APR yi c'est pas trop tard de se ressaisir suba histoire mooy am de suba on va voter a quatre-vingt pour cent Bassirou Diomaye Faye xam nga lan laa bëggoon mu doon dama bëggoon mu doon quatre-vingt-dix voire quatre-vingt-quinze pour cent au premier tour ndax boo leen déggee li xew sama benn xarit laa koy waxtaanal tey mu ne ma man dafa am lu ma jaaxal de ma ne ko lu la jaaxal mu ne man mii de opposition laa daan dégg ñuy wax waxu deuxième tour opposition waaye bi yoon parti au pouvoir mooy ñaan yàlla ñu dem deuxième tour parti au pouvoir parti au pouvoir bi nga xam ne moo yor réew mi moom moo nekk bi ñaan yàlla ñu dem deuxième tour opposition bi premier tour la wax opposition moo daan wax waxu deuxième tour déglu leen ma bu baax ngeen dem xool ci histoire du Sénégal ndax mbas ngeen gis fenn foo xam ne parti au pouvoir mooy laaj deuxième tour opposition moo daan laaj deuxième tour parti au pouvoir da daan gëm boppam ne moom premier tour lay gagné waaye suñu parti au pouvoir bi fi mu ne nii lajj nañu yéen gis ngeen Macky sàll fu mu génnee dem campagne Amadou gis ngeen Macky sàll fu mu génnee jox Amadou Ba crédibilité Macky Sall de moom mi ko tànn par erreur gis ngeen makki sàll fu mu génnee di wax lu baax ci Amadou Ba gis ngeen gis ngeen Macky Sall fu mu génnee di seedeel Amadou Ba lu baax Ousmane Sonko de ma ngi koy defal jomaay bay waat Ousmane Sonko bis bu ne mu génn waat ci yàlla ne Bassirou Diomaye Faye mooy kii loxoom set moom moo baax pour doon président Sénégal lu tax Macky sàll defalul loolu amadu Ba loolu mooy Amadou Ba du nit ku baax makki Sall ci boppam dafa tànn Amadou Ba dem ba ci biir xam ne baaxul information bu senn ci kaawu Macky Sall nekk ci terrain bi yéen waa APR lay waxal de Amadou Ba moo ñu ko jox dama leen koy wax léegi ñaawteef bi ngeen gis xeex yi leen di xeex ni yëpp ay at information yi génn yëpp ci loxo Amadou Ba la jaar jaar ci ay ñoñam yegg ci ñun mën naa leen garantiral te j'ai des preuves à l'appui ma waxaat leen ba ci affaire mambay ñaaw Prodac Amadou Ba moo génnee information yi jox bi yéen fenkat bi gën a mag ci àdduna bi ngeen am moom moo bëgg a falu président ki ngeen gis nii Amadou Ba moom mooy ki yàgg yàq APR moom mooy ki yàgg génne secret APR kooku boo leen ko votelee xam ngeen ne votel ngeen ku naar li li ñuy naar a dee ci biiram fukki naara ak dee ci biiram waa APR dama leen di wax de noon bi gën a mag ngeen am ci àdduna bi Amadou Ba moo dàq fen dàq inventé dàq fabriqué information bu ñu yor ñun ci réseaux sociaux yi Amadou Ba moo ñu ko jox Amadou Ba équipe la yoroon ànd ak Macky waaye gëmu ko lépp luy ñaawteef moom moo ko daan génnee di ko teg ci ci loxo pour ñu mën a contrer Macky Sall kooku yéen waa APR di ngeen ko woteel APR di ngeen woteel amadu Ba dem leen woteel ko bu leen neexee ngeen jël seen carte dem sànnil ko waaye man Ousmane Tounkara nee naa leen Amadou Ba moom mooy ki yàq APR moom moo génnee information yi moom moo daan génnee information Mame Mbaye Niang yi caaxaan yi lépp lu am ci APR Amadou Ba moo ko doon génnee amadu Ba dafa yàgg xeex pour daaneel Macky sal man maa leen wax lii moom moo xeex pour daaneel ko ci troisième mandat moom moo xeex pour daaneel ko fi muy wax nii Amadou Ba moom moo xeexoon yëpp pour daaneel Macky Sall pour jël nguur gi moom yàq ko donc dama ne ñëw leen ñu ànd ñu defar suñu ay réew Amadou Ba du nit ku normal Amadou Ba du nit ku baax Amadou Ba du nit ku bëgg senegal donc bu leen fooyee seen xel yi di foyee seen bopp yi ba yàq seen bopp boo leen gisee toujours ñun ñu doon ay nit yu diiñ dañuy am information ñu ne teg information bi nag bu ñu arrangé dañ koy génne mais Sénégal la arrangé mais dama leen ne Amadou Ba baaxul man maa leen wax lii man Ousmane Tounkara maa leen wax lii dama leen ne Amadou Ba du nit ku baax Amadou Ba du ku bëgg réew mi Amadou Ba du waxkatu dëgg Amadou Ba gëmul Sénégal amadu Ba gëmul sax ku gëm senegal Amadou Ba gëmu amadu Ba gëmul dara dara dara dara nee naa leen bépp information bu ñu masa jot ci équipe Amadou Ba lay génnee pour ñëw ci ñun pour ñu contrer makisal maanaam li li tubaab di ne keep your friends close and keep your enemies Macky Sall ennemi am numéro un moom mooy Amadou Ba ma wax leen loolu tey Amadou Ba mooy ennemi numéro un bu Sénégal dama leen di wax loolu tey ngeen xam ngeen man faalewu ma Macky Sall man gëw ma Macky Sall mosuma koo gëm waaye dama leen bëgg a ne Amadou Ba mii ngeen di xool moom mooy le premier danger du Sénégal ndax seen APR bii tey bu tasee yàlla ak Amadou Ba. Amadou Ba moo tas APR te Amadou Ba ñun duñ ko jox Sénégal mu koy tas moo tax may ñaanaat sama frère yi sama sœur yi sama yaay yi sama sama sama doom yi ngeen génn massivement voté Bassirou Diomaye fay suba pour ñu sanctionner Amadou Ba parce que fenkat la sàcc la te gëmul sax yàlla yéen dafa am lu bari loo xam ne xamu leen ko ci Amadou Ba Amadou Ba. gëmul sax yàlla parce que nit ku mën a toog ci weeru koor ñu lay laaj question ci ab tele lu toll ci soxna soxna soo xam ne da ngeen am ay seex Amadou ak soxnaam ñaareel bi dañu am ay seex ay seex la am ak moom ñaari doom pas benn dafa yàgg nekk maîtresse am nag ba mu jëndal ko ci ay appartement yu luxe France après nag ginnaaw gi ci la ko takk mais takk suuf mais na assumé Bassirou Diomaye fay ñaareelam bi ñaareelam boobu ngeen di gis consommé gu ko <coughs> Europe la jóge ñëw consommé gu ko mais jël na responsabilité yëkkati loxoom yëkkati loxo aawa bi wane ko adduna bi yëpp gis ko ne leen ñu ngi ñii samay soxna lañu Amadou Ba du nit ku baax donc nit nag doo dem ba ci mbañ gàcce doo dem ba ci bëgg changé changer sa réew ngay voté ay tappalekat déedéet fii may tëjee nag mooy ndawu Sénégal encore li ci gën a spécial à plus forte raison suñu influenceur u sénégalais suñu ndaw ñi mais à plus forte raison suñu influenceurs yi bëgg nañu suba bu ci yàlla àndee kenn ku nekk ci yéen ngeen voté boo leen voté ba pare ngeen sécuriser vote yi parce que ni ngeen mën a sécuriser vote yi mooy irrégularité yoo leen gis génnee leen ko ngeen siiwal ko mu siiw ci lu mu gën a gaaw lépp loo leen gis siiwal leen ko pour xale yi ñëw am nañu ay comité ay force ay force yoo xam ne ñoom lu ñuy def mooy dañuy sécuriser vote yi dañuy dem xool fu ay nit dëkkul di fa jéem a voté ñu jëflante ñoom fu ay nit di jéem a jéggi ay frontière te bokkuñu ci ñun ñu jëflante ñoom gan bu ñu gis te xàmmewuñu ko ñu jëflante ñoom donc dama bëgg pour ngeen xam ne suba mooy bi